phosphate doon élément bu am solo ci dundinu doomu aadama mu nekk ab ressource naturelle bi nga xamante ni daanaka muy base ci suñu bëggee mbay mu jaar yoon ñu koy jëfandikoo comme engrais ñëpp jàppee ko itam comme recherche bu am dooli lool boobule richesse moo am fii si ndendoor yi féete fële sa Fouta muy dugal at wu ne ay milliards yu bëree bëri si gafakewu nguuru Sénégal waaye askan wi fi yeewoo gisuñu ci seen bopp benn yoon ndaxte ñoom jàpp nañu ne bile phosphate indiwul lu dul jafe-jafe ci seen dëkk bi. aji yarda ɗo ko société goto dama leen di fàttali rek taarixu usine bii di serpem moom mooy société bi ñu fi njëkk a taxawal ginnaaw moom la fi bu ñu naan same vibe ñëw dëgg la suñuy doom ñoo ciy liggéeyee waaye du ni mu waroon a demee ndax ñeneen ñi jóge ci yeneen gox sax lañ gën a jox cër ci suñuy doom bañ na ko ba ay local lañ ñuy woowee te loolu bedd nit la ñun ñëpp xam nañ ni phosphate bii lu am solo la bés bu nekk lu tolloog ay téeméeri camion dañ ko fi duyee ba mu fees wutali ndakaaru kon loolu am na njariñ lu ñuy jël di ko yóbbu bitim réew te ñun ñiy dëkk ndendoor yi mënuñu ci am dara loolu nekkul lu ñu jariñ yàggul dara ci ginnaaw ndawi ndendoor yi yépp dañoo dajaloo woon ne déet ci looli le mu nekkoon moom mi ndaw bi jotoon liggéeyi fële ca phosphate yi moom mi lu dul njàkkare ak yaakaar bu tas jëlewu ko fa ndax ni ñu koy déggee ak ni mu amee du noonu ñoom ñi sax toog fii amuñu yaakaar benn yoon si bile les ressources donc daanaka ki njëkk a wax mooy suñu coordinateur mooy coordinateur AJDN daanaka wax na lépp ci pulaar lépp li nga xamante ne tey métti nañu wax na ko te ak xol la ko waxee effectivement, quand le cœur parle, cela veut dire que c'est avéré, c'est vrai, c'est prouvé. Donc, l'union fii tey par rapport ak la euh, société, il faut mettre trop ça. Parce que la bi comme ni nous l'avons dit, c'est un serpent qui est dit. serpent qui ñëwee fi si j'ai une bonne mémoire, c'était en 2010 ko a inauguré. Entre-temps, en 2013, serpent ñoom dañ doon exploiter la petite mine en 2013 su ma ñëw di exploiter la grande mine bi ñëwee nag ñun amoon nañu yaakaar yaakaar bu mag a mag dañ amoon ci ci ci SOMIVA parce que ak ni ñu ñëwee ak par rapport ak seen directeur général li mu waxoon par rapport ci ay création d'emploi par rapport ak euh, société bi seen droit ak seen devoir ci ci ci population par exemple comme ay redevance minière ay euh, euh, la RSE responsabilité sociétale de l'entreprise les fonds d'appui au développement local donc moom bi mu ñëwee di ko inauguré li mu waxoon rek ñun amoon nañu njorto vraiment Euh, chômage dina fi jógee te tamit développement dina fi am mais par contre après quelques années d' exploitation demeewul noonu euh, c' est le contraire par exemple dañoo gën a sonn euh, gën a usé wu gën a am lu ñu métti par rapport ak exploitation bi voilà situation bi noonu la tëdd waaw bu ñu waxee ci wàllu jeunes yi xam ma jeunesse mooy emploi jeune loolu la bëgg xëy di liggéey di wàcc société bi di loolu dinañ ko wax am ñi nga xamante ne société bi moo leen jël même bu dee bari wuñu société bi jël na leen formé leen nekk foofu di liggéey bariwuñu nag mais boo xoolee tey jeunesse bi jeunesse bu nekk fii tey ci région de Matam département de Kaymel wala commune de Ndory macha allah alhamdulilah nekk nañ ay jeunes yi nga xamante ne même bu dee am amuñu qualification professionnelle ci wàllu liggéey mi mais am nañu xam-xam am nañu ay diplôme am nañu tamit ay kattan je pense que société bi ñoom waroon nañ jël le maximum de jeunes former leen par rapport ci liggéey mine yi mais demewuñu leen lu ci des ci liggéey bi daanaka quatre vingt di pour cent ñëpp ay manœuvre lañu ay main d'œuvre lañu donc te nga ñëw nga fekk fi ay jeunes yi nga xamante ne am nañu seen diplôme nga fekkee jeunes yi nga xamante ne eh, macha allah eh, am nañu pas-pas di liggéey au lieu nga jël leen nga jël leen di leen former ci wàllu liggéey min pour ñu am expérience bi pour ñu am xam-xam bi ñu ñoom dañu préférer dem feneen ci yeneen régions yi ñun on n'a pas compte de ça parce que nous sommes tous de sénégalais mun nañ dem ci yeneen régions yi di jël ay nit. pour juste ñu mën a liggéey loolu c'est compréhensible mun nañ def mais après quelques années d'exploitation normalement waroon nañu jël ay jeunes yu bëri bëri di leen former di leen embaucher mais demul tamit ñu nekk foofu di liggéey ils ne sont pas traités au même pied d'égalité que ko pan man musoon y a une discrimination entre ñi nga xamante ne fii lañ dëkk ak ñi nga xamante ne dañoo jógee ci yeneen régions yi discrimination ci wàllu salaire discrimination ci wàllu jour de repos ci wàllu heure de travail loolu dafa métti discrimination boobu dem nañu ba ci inspecteur du travail sax inspecteur régional du travail di ko wax ci discrimination bi mais ba tey jusqu'à présent ça continue. indi ci ay safara tout récemment lañ commencé di gis ay safara mooy comme kii coordinateur bi li mu waxee woon ci wàllu manifestation yi. bi ñu defee manifestation yi le 30 septembre 2020 ñu connaît ba le premier ba le trois affaire bi xaw a dégénéré affaire bi dem ba ci niveau président après euh, dañoo continuer. di négocier continuer di waxtaan continuer di tan après ci la inspecteur du travail effectivement envoyé foofu benn élément pour mu dem inspecter xool exactement est-ce que ce que lu ñuy wax loolu c'est avéré ou pa bi mu demee sur le terrain rencontrer les ouvriers ñoom loolu la ñuy wax ci lañ commencé jël ay saafara mais ba tey dafa des. des na trop sax. xam seen i àq ak seen i tax ñoom ndawi ndendoor yi taxawoon temb ngir laaj seen i droit ci phosphate bi nga xamante ni ci seen dëkk la nekk ba ci seen i tool waaye ci boobu la manifestation jëlewuñ si lu dul humiliation. kewoonoo doo ko année benn doo. yàggul dara ci ginnaaw ndawi ndendoor yi yépp dañoo dajaloo woon ne déet ci loolu lee di am te teguwul ci yoon. waaye ay takk der ñoo fi ñëw def leen lu metti ba pare toroxal leen ba léegi am na ñuy faju te wéraguñ loolu toroxal doomu aadama la nit boo ko jàppee def ko li ngay def ba pare tasaare ay photo ci dëkk bi loolu ci ñun toroxal doomu aadama la loolu nag duñu ko mësa fàtte te kenn ci ñun waxu leen na fi société bi jóge ak foo mënti dem nag ci àdduna su fa barabu liggéeyukaay nekkee ña fa dëkk dañ leen a war a jox cër te société ba fa nekk dafa war a taxawu gox ba fii ci ndendoor yi fii ci ndendoor yi suñu phosphate bii du am-am ndax ñun amuñu ci dara doo fi mës a gis ñu fiy taxawal ci xaalisu phosphate bile. mukk ci àdduna ni ñu ko waxee ñoom noonu lañ ko gisee waaye niroowul sax fu am recherche bu melni ni phosphate du ci xar kanam du ci réalisation environnement plutôt bu pollué ak ay jeunes yu mer lañ fi gis li ni mel nag ka ñoom ñuy joytu te di ñaan dimbal président Macky Sall rawatina ci ministre bi nga xamante ne moom lañu denk wàllum alam bi waa mine ñu ñëw xoolaat bu baax a baax naka la fii di doxee